asalaamaaleykum. maaleykum salaam. man mi wax ak yéen magum jëmm laa. ma xale. ma ngi eh, sonn nañ. Eh, maa ngi tudd Mamadou Niakhasso. xam nga. waaw ah, li waral ñax bi dèjà. dëkk fi Parcelles Assainies yaa ngi fi trop. ñu toog amuñu courant amuñu ndox amuñu dara. tey métti na. dëkk dëkk dëkk ci boppam sox ngay defar da ngay am courant am ndox. du yoon. ba soo leen def ko dafa am lu tax ndax li dafa metti ndax nga nekk tailleur nga jël avance moom xamul yow amoo courant xamul mu ñëw di la créer tamit loolu di yoon ñu di nangu loolu ñu ñëpp gën ay jeunes lañu ñu dafi taxawal wala ñu defi di agressé di nga fi di liggéey amul courant ñu nag léegi courant pour liggéey nañ jox courant nga bàyyi mais ñu dem courant fii lan waral problème bi mooy chaque bu tey rek la ñu a tey rek mais chaque année nii lañ ñuy def chaque année pour compteur bi dafa yàqu bi dafa yàqu. teel a ñawi jàmm depuis démb ba léegi bu xoolal tàngaayu marché bi amuñu courant nan la ñuy nettali ñi nga xam ne ñooy suñu client yi. ñu leen wax dem nañ ci télé wax ko mu ne ko compétence ci mu yam mooy woo na mairie woo na kii wax na fii ñun nag léegi suñu compétence mooy ñu woo. du yoon suñu compétent compétent mu maire yi ñoom ñu délégué marché lañu am délégué marché fekk mënu rek la suñu benn problème chaque année nii lañuy chaque année dañuy coupé courant ay cinq jours six jours ñu naan émetteur bi moo lakk naka la ñuy fay lee courant yi coupé ñu boo fay dem kantin bi ñu ñaata fan amu leen courant démb ba tey démb ba tey démb ba tey amu ba tey amuñu léegi nag ba tey si tey ak soudeur yi nga naan téer ak ñëpp comme léegi ñu ah. dañuy ñaan